أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم إخوة الإيمان السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ginnaaw bu nu tàmbalee ci turu yàlla tabaraka wa taala noo ngi ñaanal sunu yonentu muhammad sallallahu alayhi wa alihi wa sahbihi wa sallam yal na ko yàlla dolli xéewal te musal ko ginnaaw loolu mbokki jullit yi sunu dars bi passé xam ngeen ne dafa guddoon ba waraloon ñu dagg ko ndax importance am yi nekk ci aaye yi tey ñu war ko tàmbalee ci aaya 152 muy wala taqrabu maal al yatimi illa billati hiya ahsan ñu war tàmbalee tey foofu ci bismillahi tabaraka wa taala eggali aaya yi sunu borom subhanahu wa taala xam ngeen ne moo ngi dénkaane jirim yi ci toppatoo leen sàmm leen ba ñu mesure mu ne wala taqrabu bu leen jege maalal yatim alalu jirim kan mooy yetim mooy ku baayam génn àdduna fekk majeuragul ku ndeyam ak baayam génn àdduna yéen a ngi koy woowee fii ñu ngeen koy woowee ah ci olof déedéet ku ndeyam ak baayam génn àdduna ñu ngeen koy woowee ku yaayam génn àdduna baayo ku ndeyam ak baayam génn àdduna ko lañ naan baayo ku baayam kese génn àdduna ñu tuddee ko jirim ah sunu borom subhanahu wa taala day dénkaane mu ne bu leen jege alalu jirim yi wala taqrabu soo xoolee aaya bi ñu nekk wala aaya yi di nga fa gis ñaata wala taqrabu paase nañ benn mooy wala taqrabul fawahisha ma zahara minha wa ma batan gis nga teyit mu ne la wala taqrabu maalal yatimi bu leen jege alalu jirim yi na ngeen ko wattu na ngeen rafetal ci alal ji nan lañ koy wattoo mooy bañ koo wàññi wala yàq ko ci mboolem nag anam yi ba mu màgg ba mu mesure moom ku jirim kooku nañu wattu alal ji nañ ko sàmm nañu fexe alal ji màgg xataa yabluga sudda ba ala ba jirim bi egg ci waxtu dëgër waxtu woo xam ne moom jirim bi dana ci mën a taxawe ay mbiri boppam dana mën a mesure nan la ñuy xamee ne waxtu mesure nan lañ koy xamee ci islaam mooy ci gént bu dee góor la mu gént sëy mesure na wala mu gis poqataanam am kawar wala naqam am kawar kooku mesure na bu dee jigéen bu gisee baax mesure na kon garde leen alal ji ba xale bu góor boobu wala xale bu jigéen bi toll ci waxtu wii waaw ngeen gis mandarga yi nga xam ne moom la sharia wax ne ku ko am mesure nga su ko defee bu dee jigéen la bu gisee mbaax wala mu ëmb dañu xam ne kooku léegi mesure na wala mu daal di am fukki at ak ñett ak juróom-ñett ci dundam su boobaa mu nekk ku am xel na ngeen ko delloo alalam ngeen ko jox bu fekkee nag xelwul alal ji bu ko ko kenn delloo ndax daf koy yàq kon ndénkaane la bu bàyyeekoo ci borom bi tabaraka wa taala mu ñuy dénk mu ne ñu wala taqrabu bu leen jege maalal yatiimi alalu jirim yi seen alal bi nga xam ne seen baay moo faatu bàyyee leen ko su fekkee daal am na lu ngeen ci war a def mooy illaa lu dul billati hiya ahsan lu dul ca la rafet protéger alal ji protéger ko moom dencal ko alal ji fexe alal ji yokk bu fekkee am na ku ciy liggéey alal ji yokk aaral ko ko ba ëllëg ak si biir ëllëg ak si biir ñu mën a màgg ñoom xale yooyu ñu mën a fekk xale yooyu fekk ne alal ji leen seen bàyyi bàyyi yee wax dëgg yàlla mën nañ cee dund mais xam ngeen tey ci sunu jamono li fi am mooy lu bari bari ci kilifa yi bu ñu dee bàyyi alal da ngay gis mbokk yi pasar pasare ci bisu ci bisu dëj bi lañ koy tàmbalee pasar pasare ci bisu dëj bi jëndi ay nag lang ay lang tànti ay baas jëndi ceeb di dëj rek tëx a pare waaw di rangale ay mbana nit ñi toog ci kër gi rek di lekk foofu lañ koy tàmbalee boo amee ay fan ñu woote dañuy jaay kër gi def nangam ak nangam tasaare alal ji ku nekk bëgg cee am ñenn ñi sax naan man balaa muy faatu mayoon na ma nangam waaw ñenn ñi bu fekkoon ne yëg nañ ne lebal na leen ñu ne fayoon naa ko ko lu loolu loolu da nga koy gis lu bëree bëri noonu la ñuy commencé yàq alalu xale yooyu alalu jirim yi ba xale yooyu bu ñu màggee dañuy li ñuy dégg rek mooy seen papa borom alal la woon kese foofu la ñuy dégg seen papa de amoon na foofu rek la ñuy dégg seen papa amoon na ana alal ja pasar pasaree nañ ko yàq nañ ko wala ñu bàyyee ko yaay joo xam ne dafa bëgg àdduna bu koy xeesaleeg di ko demee Dubaay ak Chine ba alal ji ne pëng daal di alku waaw loolu nag sunu borom daf ñuy dénk ndénkaane la wax naa sa wax naa dars bële paase ku bëgg a gis ndénkaane bu yonent bi def kase na ñëw yër aaya bi aaya yaa ngi nii loolu la Abdullah ibnu Mas'ud wax bokk na ci ndénkaane yi bu leen jege alalu jirim yi lu dul lu ngeen ci rafetal dencal leen sàmmal leen ko ñoom aar leen ci seen bopp ba alal ji màgg hatta yabluga ba ñu toll ashudda seenu ndëgër laay waxtu dëgër laay wax naa sànq waxtu wi nga xam ne mooy waxtu wa nit di mesure ci góor ak jigéen su fekkee loolu am na nag xale bi wala waa ji bëgg ñu delloo ko alalam ah mën na ko ñu xool ñu natt ko ñu gis ne mën na gérer alal ji su boobaa ñu jox ko alali baayam ndax moom moo ko moom waaw moo ko moom loolu ndénkaane la mbokk yi ci ndénkaane yàlla tabaraka wa taala bu mu ñu dénk tey bokk na ci ndénkaane yi ñu gën a sàggane bii ci la bokk mooy ñàkk a toppatoo alalu jirim ak di ko yàqate ak di ko pasar pasare jirim yu bare bare bare bare ñoo ngi jooy ci Sénégal alal joo xam ne mënoon nañ ci jàpp xale bi fayal ko ci mu jàng mënoon nañ ko ci faj mënoon nañ ko ci toppatoo ba du tumaranki waaye ay nit yu foqale ay nit ñu ragalul yàlla ñooy ñëw peeg alal ci di ko pasar pasare di ci def lu leen neex waaw surtout nag ñi nga xam ne yenn saay sax seen wéyjur bu góor ak bu jigéen day génn àdduna duñ leen bàyyee kenn kenn kenn koo xam ne mën na leen a sàmm ñu mel noonu ñu ci bëri gaa yi dañuy profito waaw lekk lépp yenn saa yi sax nga gis koo xam ne day ñëw ne day takk meer bi da koy takk pour lekk ci alal ji rek wala mu ne day takk meer bi sëy indiwu ko de li koy indi mooy lekk ci alal ji noos ci beneen ndénkaane bu ñu yàlla dénk ci aaya yi mu ne wa aw fu na ngeen matal alkayla nat wal misaan ak peese bil xist ci maanduti ndénkaane bi tamit lu ngeen ci wax tey ci Sénégal natt ak peese lu ngeen ci xam ah da ngay gis tey ñii peese balance yi aiguille bi la ñuy damm seen loxo la ñuy tibbe seen loxo la ñuy tege seen loxo la ñuy daanalee fépp nag lépp lu ñuy peese lu ne waaw gaa yaa ngi xool lu ñu koy daanale lu ñuy natt nag dañuy jël ay këyit ci biir bu dee paan la jaaral fii rek war a dem ay puud yooyu nga romb paanu mango nga naan allahu akbar paan bi ñaata ñu ne la 1000 francs nga ni solal ma ko mu nekk ñetti mango nga ne waaw lii nag lii la de pour yow ba ngay jënd loo yaakaaroon te fis daal nga nga nga naan ay lii de naa ci ndékki xalaat naa ci lekk ñetti fan fekk ñett la wala ñeent même gerte sax da ngay gis kaas bi dañ ciy sol ay këyit bu mu digg jal gerte ci kaw nga defe ne wala potu gerte bi ñuy nattee maanaam natt ci Sénégal lépp nag lu ñuy natt wala lu ñuy peese nit ñi ragalatuñ ci yàlla te benn pepp rek mën naa alak nit dugal ko safara benn pepp wala benn doom bi ngay xeeb li tax nit ñi mënatuñu jaamu yàlla lu am cafka mooy li ñuy lekk moo daganut nit bu lekk lu daganut mënoo fexe ba ñaan yàlla yàlla may la yonent bi ba mu waxee Abdullah Saad ibnu Abi Waqaas Saad ba mu laajee yonent bi ne ko waaw yonent man de gis naa la nga ñaan rek yàlla nangu waaw man pour ma ñaan yàlla may ma nu may def mu ne ko atib mataamaka atib mataamaka li ngay lekk sellal ko na dagan li ngay lekk bu daganee wallahi boo ñaanee yàlla yàlla may la waaye li ngay lekk bu daganu ay bakkaar ngay dajale àqu nit ñi nga dajale ci li ngay natt wala li ngay peese li ngay jaay te xam ngeen ne mbirum natt ak peese yàlla def cee wàcce saar saar ba nu mu tudd suratu mutaffifin yàlla ne waylun lil mutaffifin alladina ida ktaalu ala nnaas yastawfuun wa ida kaaluhum aw wazanuhum yuxsiruun xoolal siidu aaya bi li ci des alaa yazunnu ulaika annahum mabuusuun xanaa ñii def li yaakaaruñ ne danañ dékki ñii natt di ci sàcc wala ñuy natt duñ ko matal wala bu ñuy nattal seen bopp ñu matal bu ñuy nattal keneen wàññi yàlla mu ne alaa yazunnu ulaika annahum mabuusuun ñii xanaa ñoom dañoo yaakaar ne ñoom duñ dékki kañ mu ne li yawmin azim allahu akbar ca bésub yowmal qiyaama kon ndeke mbir yi du lu ndaw li ngay dajale fii dërëm yi ngay dajale alalu jàmbur yi ngay jël ku nekk nga sàcc ci moom benn pepp wala ku nekk nga sàcc ci moom as as liibar wala as genn wàllu liibar nga dajale ko dafa ne am nga bénéfice yàlla nee na ñiy lekk alal ju araam innama yaakuluna fi butunihim naaran safara ngay lekk moo tax gis ngeen loolu tey jii fii ñu toll ci àdduna bi ñëpp a seede ne état yi lekk riba yëpp dañoo daanu ba ci banque yi banque riba yëpp a daanu ñëpp ko gis gis ngeen Europe lan moo leen alak banque riba yi benn dëkk moo amul Europe problème mooy ban dëkk Allemagne lu tax seen seen ministre bi yor mbirum économique bi Arabie Saoudite la demoon yaa ngi naka la ñuy gérer économique islamique mu ñëw démontrer démontrer ko foofu gis nga wala Malaisie lan la système économique bi lan lañ koy doxale système islamique parce que riba baaxul même fii xool leen borom alal yi lekk riba xool leen fu ñuy mujj société yëpp dañuy këpp ñoom ci seen bopp dañuy feebar alal ñi ñu fajoo ko ba mu jeex ñu yóbbu Europe indiwaat après mu dee riba baaxul lekk alal ju bon baaxul yenent bi alayhi salaatu wasalaam nee na inna allaha tayyibun laa yaqbalu illa tayyib yàlla dafa teey yàlla dafa set yàlla dafa sell du nangu lu dul lu teey lu laab lu sell waaw yàlla tameem la yor rek lépp loo yenda def bu ngoonee balaa nga yàlla di ko jël da koy lay la ca baax mu jël la ca nekk lu sikk mu delloo la ko waaw loolu bu yeboo ñu xam ko kon sunu borom subhanahu wa taala nee nañu wa aw fu matal leen loolu ndigal la loola ci arab lañ naan fiilu amrin ndigal la yàlla joxe pour ñu jëfe ko wa aw fu matal leen la la ñuy matal mu ne alkayla nat wal mizan ak peese nan lañ koy matalee mu ne bil qist ci maanuti gis nga de booy jaay xam nga tey borom gerte bi ki gën a ki gën a tuuti ci Sénégal ma jël gerte nga dem jëndi gerte ñëw saaf ko ba pare di ko jaay yow loolu ngay jaay da nga ci bëgg bénéfice bu bëri wala bu ndaw wala nga ci bëgg wala tuuti booy natt nooy def yaa ngi korkoral natt bi di jéem a tappale waa ji sax même bu dee ñetti doomu gerte bu dee waa ji day jaay këriñ gis ngeen këriñ këriñ est-ce que kilo këriñ amati na kilo këriñ amati na man de gëj naa koo gis kilo këriñ gëj naa koo gis bu mat sëkk nii ñu ne lii kilo la ba ci mburu mi ngeen di ndékkee kilo mburu bu mat sëkk lu tax parce que balance bi moo dul baax la ñuy peese moo baaxatut te doomu aadama yi duñ ci bàyyi xel da gis ngeen borom boulangerie yi duñ dem nit ki ñoo ne la jaay ma kilo état bi moo décrété ne kilo ñaata la ah xam nga moom xaalis bu mat sëkk la la jox yow nga jox ko benn mburu rek boo xam ne dafa am ñaari bopp laxas def ko ci kayit moom mu dem fekk yow yaa ngi ko jox liibar ak genn waa liibar ak tuuti am na lu ci manque léegi nag yow jox nga ko moom jàpp na ne bépp mburu boo xam ne dafa am ñaari bopp rek lan la kilo la moom jàpp na dem na yoonam yow am nga ci bénéfice kii am nga ci moom bénéfice ñaar dërëm kii am nga ci ñaar dërëm journée bi yëpp nga yendoo am ñaar dërëm nga defee ne am nga dara fekk yowmal xiyaam wallahi sa benn tànk bi ndey joor bi balaa muy traversé siraat càmmuñ bi di ñëw wallahi di nga wax alal jooju ngay lekk foo ko jëlee ndax hadis la yonent bi alayhi salaatu wasalaam ne lan tazuula qadama abdin yowmal qiyaama hatta tusal an arba an malihi min ayna axazahu wa fi ma anfaqa wa an umrihi fi ma afna wa an shababihi fi ma abla wa an ilmihi maza amila bi yeneen bi nee na ñeent yàlla dina ko laaj yowmal xiyaam biñ ci gën a amal importance tey mooy sa alal ji foo ko jële ak foo ko dugal bu dee alal ji yaa ngi ko jëlee ci lekk ay riba korkoralu riba ci kaw nit ñi looy wax yàlla kon nañu bàyyi xel loolu nañu nañu lu am barke ëppal importance lu bëri lu am barke sànq dañ ma nettali benn audio buñ ma envoyé sama whatsapp benn benn jigéen moom ma ko envoyé mu ne dafa am benn dëkk bilaal bi dafa ñëw ci jàkka ji nodd li mu noddee ba pare benn waaye ñëw ne ko yow yaay bilaal bi mu ne waaw mu ne ana imaam bi mu ne ñëwagul waa ji daal di génne ñaari daal di génne fukki junni ne ko fukki junni yi yow yaa ko moom ñaari paquet suukar yi imaam bi moo ko moom mu ne ko dégguma la de waa ji ne ko ma ne fukki junni yi yow yaa ko moom yow bilaal bi imaam bi moom moom ñaari paquet suukar yi mu ne ko dégguma li nga wax de mu ne ko ma ne fukki junni yi mu ne ah mu ne yow yaa ko moom mu ne waaw dégg naa ko ne ñaari paquet suga yi nag mu ne imaam bi mu ne d'accord ñu julli ba pare rek bilaal jóg taxaw ne asalaamaaleykum imaam am na benn waay bu fi jaar jox na ma fukki junni jox la ñaari paquet sukkar waa jàkka ji ne ko um mënu ñoo dégg li ngay wax de imaam ne ko waxaatal mu ne waa ji nee na nga jël ñaari paquet sukkar yi man maa moom fukki junni mu ne ko dégguma li nga wax de waa ji ne imaam waa ji nee na fukki junni mu ne mu ne man mi maa ko moom ñaari paquet sukar yow yaa ko moom waa jaaka ji ne ko déedéet korkoral waa ji korkoral waa ji waa ji ne leen waa léegi ne imaam jël fukki junni yi ngeen jox ma ñaari paquet sukar yi waa ji ne ko waa kay yaa ngi doo ko normal waa jël ñaari paquet sukar yóbbu gërëm imaam jël fukki junni yóbbu këram bu waaj demee ba yegg ak moom liñ ko wax ni mu leeree ci xëy na waar de mu dajji benn paquet sukkar bi moo gis suukar la ci mu dajji beneen bi mu fekk fa 500000 léegi nag gaa ñi ne daf ko war a delloo wala moom moo ko moom après ngeen tontu ma ci ah après ngeen tontu ma ci dégg ngeen question la 500 millions yooyu ndax da koy delloo ci imam wala day li fukki junneem wala day toog lekk sunu borom subhanahu wa taala mu ne laa nukallifu nafsan illa wusaha laa nukallifu toggunu tegunu nafsan bakkan illa wusaha lu dul la mu attan lu dul la yaatu ci moom taaqataha la mu mën wa ma tattasiu la benn bakkan gis nga buñ déggoon aaya yi duñ sonn laa nukallifu nafsan illa wusaha kenn ci ñun amul lu la yàlla teg loo xam ni mënoo ko amul julli julli fajar kan moo ko fi mënul leen benn waay ne man mënu maa yow fajar de te buñ la ci déggee cinq cent mille léegi nga yeewu teel dem jëli ko kon kay du dëgg man de mënumaa yow fajar ngay tukki ñu convoqué la trois heures du matin nga dem fanaani aéroport é tey du ma nelaw parce que booy vol bi daf ma fi bàyyi waaw kon kay mën nga ko si non man mënumaa julli ji jàkk jël dafa sori ngay football match quatre-vingt-dix minutes te buñ la génnee sax nga mer pourquoi ñu may remplacer bu fa dee nga ni mënoo dox fee ñaari mètre dem jàkk julli ji te ngay football match quatre-vingt-dix minutes suñ la génnee sax nga bañ bu dee marché dimanche matin ba nit ñi ñëw nit ñi ñëw di la ñaan baay booy booy dimbali ngir yàlla tamit nag waaye tamit ma ñi ñu lay ñaan te mënoo mënoo fut mënoo mënoo ah nañ seetaat suñu bopp xam ngeen ne yàlla xam nañu da ngay gis maire boo xam ne nee na man mënumaa taxaw julli te xew mi maire bi da ko yendoo fecc ba ngoon naan mag buur la lu mu def yàlla baal ko su ñu bee këram nag daal ne ah xaaral ma toog julli sama gée gi jullee gu ma ba léegi daa toog commencé allahu akbar allahu akbar pare na de defe na julli na ndax seen bopp ndax sa bopp nga gis paa boo xam ne ne mënut a dem jàkka te grand place du fa jóge saa yu xëyee mu ngi grand place ba añ jot ñu woo ko mu ñëw añ delluwaat kon li yàlla lépp lu mu nu teg rek yàlla xam na ne noonu mën nañ ko laa nukallifu nafsan illa wusaha lépp lu nu yàlla ne def leen moom yàlla xam na ne mën nanu lii moo tax mu nanu def leen ko lu nu mënul duñ ko sant xool yàlla bu ñu ñëwoon yéeg leen kaw asamaan fu ñu jëm bu nu yàlla noonu dox leen ci ngelaw li fu ñu jëm moo tax yooyu yooyu yàlla du ko wax parce que xam na ne mënu ko mu xam na ne mënu ko bu nu yàlla ne woon julli leen rek bu leen sëlmal wala woor leen bu leen dog xam na ne mënuñu ko moo tax duñu ko sant lépp lu mu sant mën nañu léegi nag mu des da ngay gis doomu aadama yi mënu santaane yàlla mais mën nañu santaane nit su yàlla waxee dara kenn du ko def mais bu nit waxee def leen ñu def wala sax yenn saa yi bu yàlla tere kenn du bàyyi bu nit teree ñu bàyyi ah amoon naa benn waay ci jamono yi ñuy tere ñu ne sëñ bi day tere cigarette ma xëy rek gis ko mu bàyyi ma ne ko mu ne wuuu sëñ bi da koy tere ma ne ko sëñ bi moo ko tere wala yàlla moo ko tere ah en tout cas man daal sëñ bee tax ma bàyyi ko kon doo am tiyaaba parce que yàlla taxul ah man kay léegi damay muuru rek lu tax ah sëñ bi nee na bopp neen baaxul yàlla moo ko wax wala sëñ bi moo ko wax képp kuy def ngir nit doo am tiyaaba perte nga ndax nit ki du la fay ëllëg yowmal qiyaam kon def ko ngir yàlla nga am tiyaaba parce que yàlla lim la sant mën nga ko xoolal tey Sénégal a ngi nii jigéen ñëpp yaramu neen lañ def da ngay xëy di yëngal sa bopp di maccatiku ba ba ba ngay egsiwaat daanaka léegi kenn woddootul tubéy yu bona bona bon lañuy sol da nga ci gis koo xam ne sa waay mu ngi toll na njaga njaay pata sol loo xam ne man yenn saa yi dama naan kii xanaa bi muy génn këram amul ay mbokk soo yaakaaree ne loolu da ngaa rafet da ngay nax sa bopp nit du def yaramu neen mukk rafet ah def yaramu neen rafet xam nga lu mu jik rab tabaski kan moo fi jëndoon xar nga yëkkati loxoom ah jëndoon nga ak kan kon benn nit moo tabaski ci jàkka ji ah gaaw leen bokk gaaw leen balaa ngeen di tabaski waat kon yéen ñëpp amul ngeen tabaski kan la ci tabaski am solo ni tubéy xar mi bi nga ko sangee ba mu rafet da nga ko solo tubéy ak mbubu déedéet waaye ndeysaan yow waaye xar bi rafet na de yow sa kuy mi dafa rafet wala du loolu la doon wax pourtant solul tubéy def yaramu neen te foo yegg si ñu ne ak rafet rab la jig fas moo dul sol tubéy fu mu yegg si ñu ne sa fas bi ak rafet sa xar mi ak rafet sa ginaar gi ak rafet loolu xar la ji rabu àll la jig waaye jigul doomu aadama doomu aadama moom boo ko gisee léegi mu def yaramu neen looy wax diw lu ko jot diw lu ko jot am na benn waaye bu filmé ci Facebook bi benn dof bu sol ay sagar yar yére yëpp xott a teg mu filmé ci côté bi benn jigéen boo xam ne jiir bi mu sol daf dañ ko désiré désiré désiré fu nekk ñu fëkk ko yaram bi daanaka lépp mu ne ñaar ñi est-ce que du benn Sénégal amoon nay temps boo gisee ku sol yére yu xotteeb looy wax ndeysaan kii de wérul kii de amul dara da ngay sax ku ne la sëñ bi xaar ñu bu ñu paree ñu dem ju ma ñu defoon ñu ànd kër ga xaar ma xaar ma pare ñu ànd kër ga tey balaa nit kontaan tubéy bi mu sol da koy fëq fëq fëq fëq fëq fëq fëq ba dootul am fu puso bi tegu mu daal di koy sol génn ki di gars yi di ko xoola ko jaa jëppaay ne sam waay sam waay vrai kii la quoi dafa branché wu sa waay vrai nandite la ku nandite di nga sol tubéy bu xotteeku ku naan ku muus di nga sol tubéy bu ñu bënnati waxuma sax góor mais jigéen nga sol tubéy ji ñu bënn waaw ah tubéy ji ñu bënnate bënnate bënnate ba doo xam tubéy ji lu muy nuru nga ne nanga ko sol lan la njàngoon ci islam almaratu kooku de boo ko ne muuru mu ne la yii dafa tàng man loolu mënuma ko de te buñ ne sëñ baa ngi nii léegi léegi day ñëw ci benn kër nga gis ñëpp muuru nag ñëw ne nii ñëpp muuru léegi ku tax ana muuraay boobu ku tax ana yàlla bu ñu génnee la ila xaw nañoo dee man de tuuti ma xam sànni fële sérieux kon kay mbir mi du dëgg mbir mi bu la yàlla taxee jóg doo ci yemale tàngaay ak seddaay doo ci yemale ku la mere ku la bëgg doo ci yeme doo ci yemale ku la kontaan xam nga lan la pour yàlla kontaan rek moo tax nga koy def kon yàlla subhanahu wa taala lim ñu digal yëpp mën nañ ko ñun danoo lànk dëgër bopp waaye mën nañ ko sunu borom nee nañu wa isa qultum beneen ndigal a ngoog su ngeen toogee bay wax ngallawaayu faadilu maandu leen allahu akbar isa qultum su ngeen di wax faadilu maandu leen walaw kaana za qurba donte ne ki ngeen di waxal wala la ngeen di waxal ku leen jege la walaw kaana za qurba donte ne ku la jege la sooy wax rek waxal dëgg bul wax sama papa la sama yaay la sama mbokk la moo tax li ma wax ni ma wax ko ndax kat damay bañ ñu ne moom moo tooñ déedéet waxal dëgg gi rek alxuraan la de wa iza qultum borom bi tabaraka wa taala nee na su ngeen di wax faadilu na ngeen maandu bul féete fen féeteel ci yàlla ak yonent féeteel ci dëgg mais tey kan la fi papaam di xuloo ak keneen mu mu ñëw ne papa wax dëgg yàlla yaa tooñ kan kan ci ñun ñi kan mooy fekk fi yaayam xuloo wu jëm mu ñëw ne yaay yaa tooñ donc da ngay ñëw rek yow commencé sox ay kurpeñ ñu ne la la nga ne man sama damaa fekk sama yaay di xeex wala sama pap wala sama wala sama doo laaj loolu du diine diine daf laa wax daf la diine dafa bëgg ci ñun ñu jub ñu nekk ñu jub xocc bu ñu kenn tax a jàdd bu ñu kenn tax a def lenn ku dul yàlla ci wax ak ci jëf ak ci lépp maandu te dafa war a am fa iza qultum su ngeen toogatee bay wax ak ci lépp lu mu mën a nekk ngalawaay faadilu na ngeen maandu waaw na ngeen maandu na ngeen xool mbir mi bu leen xool kenn ku dul yàlla tabaraka wa taala na yàlla tax ngeen di wax na yàlla tax ngeen di jëf donte ne la tax ngeen di wax xëy na ma nga dal ca way jege ñaale ba beneen ndigal mu ne ba bi ahdillaahi awfu diggu yàlla respecté leen ko contrat bi ngeen signante ak yàlla na ngeen ko respecté waaw ba bi ahdillaahi dig contrat signature bu ngeen signante seen diggante ak yàlla lu ci yàlla wax mu ne aw fuu respecté leen ko waaw ñi jàng école contrat bi ñu signante ak école bi dañ ko respecté wala lan mooy contrat bi dugg 8 heures wàcc midi dugg 3 heures ah def ex def composition ya ah ah loolu boo ko respecté wul niñ lay def dañ lay daax liggéeykaay ba nag mas nga gis fonctionnaire buy liggéey këram nga ñëw ñu embauché la ci benn société ba pare ñu ne la suba nga xëy nga ñëw ci bureau bi ñu ne la fii mooy bureau bi kayit yaa ngi nii nga buub kayit yëpp def sa saak ñu ne waaw nga ne non sama kër laa koy liggéey rek wax dëgg yàlla waaye def ma sama kër quoi ah loolu ban bureau moo ko nangu ban société ñoo koy nangu loolu mooy jullit boo xamante ne sa kër rek ngay julli doo dem jàkk nga am ak yàlla signature contrat da nga war a julli ji jàkk nga ne non non non yàlla bàyyil may liggéey kër gi rek jàkka kër gi baax na quoi fa laay liggéeyee fa laay jullee yàlla lu mu wax mooy na nga respecté li ma wax su weeru koor jotee woor su jaamu yàlla jotee jógal nga def ko wa bi ahdillaahi aw fu respecté leen dig bi ngeen waxanteeg yàlla te dig yëpp nag bu yàlla awlaa moo gën a yay waaw te soo respecté bu yàlla nga respecté bu jaam ñi li tax tey ñun ñii sax sunu biir loolu mënta nekk c'est parce que bosu yàlla lañ njëkk a violé alxuraan daf lay wax ne bul takk jigéen juy bokkaale mu wax ku jigéen ki bul takk bu la góor guy bokkaale takk lu tax lu tax loolu kuy bokkaale yàlla xam nga ne dalay bokkaale kuy bokkaale yàlla jigéen juy bokkaale yàlla foog mu bokkaale jëkkëram ak keneen beneen góor sikk nekku ci li tax du la bokkaale rek mooy dafa ragal yàlla loolu kese la waaye bu ragalul yàlla bokkaale la ak beneen góor góor goo xam ne aussi da ngay bokkaale foog nga bokkaale sa jabar da ngay may jabar ba bari nekk ci mbedd mi waaw moo tax sunu dund li ko yàq mooy li ñu waxanteeg yàlla moom la ñu deful comme nag li ñu waxanteeg yàlla defuñu ko kon mënuñu def leneen mbokk yi wallahi du baax du baax jamais seen président yi balaa ñuy yéeg lu ñuy wax su ma yéegee gouvernement bi laay njëkk a wàññi dinaa ko def vingt cinq ministres tey Sénégal ñaata ministre ngeen am yéen ñi sax xamu leen ko ah xam ngeen ko ñaata ministre la ñu am 39 ministres ci ku ne woon dinaa ko def 25 ah dinaa def nangam dinaa def nangam tey ana loolu parce que diggante ak yàlla moo coupé ku sa diggante ak yàlla coupé doo wax société bi loo def jamais mukk même bu dee sa kër sa diggante ak yàlla bu coupé wallahi yaag sa doom yi yaag sa jabar mënoo leen wax lu nekk mënul nekk parce que ku ragalul yàlla lu kon du ragal kenn du respecté dara lépp lay jalgati li tax nga respecté lii rek mooy sa digganteeg yàlla parce que loolu ngay xool ëllëg ittaqillah ay sama kunt Abdullah ibn Umar bu fekkee sàmmkat bi ci àll bi muy sàmm mu ne ko reyal ci xar benn jox ñi mu ne ko moom mook mu ne boo demee nga ni borom tilliyee ko lekk mu ne ko ayna allah ana yàlla Abdullah ibn Umar jàpp sikkim bi di yuuxu ci montagne yi naan qaala ra'i ayna allah sàmmkat bi nee na ana yàlla xool kooku sàmmkat la waaye mu ngi ragal yàlla ci xar yooyu ñu ko jox kooku suñ ko joxoon société bi nu muy def waaw ndeysaan Omar ibn Abdul Aziz bi mu jiitee bi mu jiitee islam dafa jël ministre boo xam ne xam nga lan mooy fonction lu muy liggéey ci ginnaaw président bi lay toog su président waxee ba ci àgg rek mu jël ñaari loxoom ne ko vut ci mbagg yi su président gestoo mu ne ko ragalal yàlla de kooku loolu rek la ko lañ ko jëlee foofu loolu rek mooy liggéeyam waaw mooy fàttali amir chaque vingt minutes mu kobos ko ba mu gestu mu ne ko ragalal yàlla di nga dee de fii nga toog di nga fi jóge fekk yàlla ndax ñun suñu président yi am nañ loolu ndax suñu kilifa yi am nañ loolu tey boo fi demoon ci benn kilifa nga ne ko ragalal yàlla lu ñu lay wax dóor leen ko mu dee waay kii de bu mu génn néeg bi xoolal mu naan sëñ bi na ragal yàlla dóor leen ko waay barkeelu leen ci gaa yi njëkkante la rip rip rip rip dóor lay birig nga dee lan nga wax da nga ne nit ragalal yàlla pourtant yonent bi waxoon nañ ko ragalal yàlla ah yaa ayyuhan nabi wala jàngu leen loolu yaa ayyuhan nabi ittaqillah allahu akbar yaa ayyuhan nabi ñaata la ci alxuraan suratu tahrim yaa ayyuhan nabi la suratu talaq yaa ayyuhan nabi la suratul du suratu mudassir de suratu yaa ayyuhan nabi la yooyu yëpp yàlla lan lay wax yonent bi yaa ayyuhan nabi ittaqillah yow sama yonent ragalal yàlla ndax yonent yàlla muhammad ragalul yàlla mooy yokkal sax ci moo tax kilifa kilifa goo xam ne kenn du wax ragalal yàlla du baax waaw am naa benn parent d'élève dafa xëy rek suba rek ak attaqué ma histoire oustaz oustaz dama laa soxla ma ne ko toogal oustaz li ngeen di jàngale war ngeen koo xoolaat ma ne ko lan la mu ne ma mais mais mais sama sama boss bi sama doom bi ma ne ko lan la mooy wax ak moom rek mu ne papa ragalal yàlla mu ne non mais loolu c'est trop hein c'est trop ma ne ko ah bon mu ne waaw ma ne ko da ngaa war a ragal yàlla nag mu ne mais mais xale waruma ko wax ma ne ko yow yaay kan ba kenn waru laa wax ragalal yàlla mu ne non non non non non non oustaz bul bul ko faral loolu dafa ëpp dafa ëpp ma ne ko da ngaa ragalul yàlla rek boo ragaloon yàlla bu la nee ragal yàlla da ngay kontaan ndeysaan mu mujj kontaan nag après génn ma ne ko moom liñ koy wax la la wax rek moom bu dake bu dekkoonee fii dañ naan ko ragalal yàlla diw ragalal yàlla même sax bu la sa yaay indee nii ngay jooy xale yi dañ lay woyal naan la ragalal yàlla toogal muñ ragalal yàlla loolu la xale yi di la woyal ma ne ko loolu rek la la wax mais xoola moom mu def ko problème parce que xam ko tàmm ko waaw tey ji bu fekkoon suñu société bi loolu la ñuy wax nit ñi ragal leen yàlla kon jàmmaam suñ demee ci xew yi bu ñu jëlee micro bi dañ naan nit ñi ragal leen yàlla bu ñu demee ci dëj yi ñu ne nit ñi ragal leen yàlla oto yi ñu ne nit ñi ragal leen yàlla ah ministre yi buñ assemblée ñu ne député yi ragal leen yàlla ministre yi balaa ñuy commencé ñu ne leen ragal leen yàlla dëkk bi day jub ragal yàlla fu mu nekk lépp baax lépp jub waaye ñeme yàlla fu mu nekk dara du fa baax kon mbokk julit yi ay yi ñuy jàng téere bii ñuy jàng du téere barkeelu lu téere boo xam ne dañuy bàyyi ba nit dee rek ñu ñëw commencé di jàng wala taqrabu mala alyatimi illa billati hiya ahsanu hatta yabluga ashudda wa awfu lkayla walmizana bilqisti la nukallifu nafsan illa wusaha wa idha qultum faadilu walaw kana dha qurba déedéet ndax rek bu ñu paree rek ñu séddale xaalis bi xoolal tey takk bi ma demoon bi ñu yalwaanal jàkk ji ñu ngi waaj a takk de benn paa mu ne balaa ñuy takk jàkka ji la ñuy laaj ko ci mun rek am na benn waay mu ne mu ne waa jàkka ji kan moo ci am MoneyGram orange money kan moo ci am orange money dafa am lu ma leen war a yónnee imam baak bilal baak ñëpp bàyyi takk bi seetal leen ñu ko am orange money ci gaa yi waa jumaa ji ana diw ana diw ana ma ne waa nañ takk ba ba déet déet sëñ bi baa ñu lijjanti lii ba kii ñaan man maa doon ñaan man ñaan naa ba ñu may ma ñu toog di xaar ma ne Bilal imam dimbali ngir yàlla nga xutba guro gi ñun ñëpp kenn séddalewul guro bi ak ak kii kenn séddalewu ko mu nga foofu ca jàkka ja ndax taluñu ko ndax waa ji daal nee na kan moo fi am orange money ñu fàtte takk bi non ñun fan lañ jëm jàkka ji ñëpp génn naan ana guro gi ana guro gi man la dañ koo fàtte fa séddale ndax orange money bi waaw xoolal loolu rek fuñ jëm ñun fuñ jëm lu jaral laaj la yow am nga groupe mu ngi kii voilà allahu akbar të të të të gis nga bu fi affaire tukulóor am nga groupe laa la laaj am nga groupe amul mu ngi nii demoon na la mu ngi nii gis ngeen kii seede la allahu akbar ñooñ koy du ñaay tukulóor ah kenn amul loolu nit ñuy demee kin séddalewu ko ndax taluñ ko ndax orange money am ngeen orange money rek xamuñu sax waa ji lu mu leen di yónnee mun na dem yónnee leen 1000 francs voilà ñoo xamuñu sax ta xamuñu mun na dem ba yëg dóor leen 1000 francs ñu daal waaw kii ala orange money te paay xamuñu luy orange money pour ñoom tey jii moom soobee yàlla jàkka ji day fees ay billets waa ji mën naa yegg nekk benn séeréer envoyé leen 1000 francs yal nañu yàlla woon dëgg mu wërsëgal ñu topp ko yal nañu yàlla woon neen mu wërsëgal ñu sori borom bi tabaraka wa taala nee na zalikum lii yëpp nag ñu doon wax samedi bële ak bii tey ñu nekk wasaakum bihi moom la leen yàlla dénk laallakum ndax yéen tazakkaruna ngeen mën a fàttaliku ngeen bàyyi li ngeen nekkee topp yàlla tabaraka wa taala lim wax zalikum lii ñu leen doon wax ci dars bi ngeen koy dégg mu nekk ay ndénkaane yu yàlla dénkaane ñu war ko sàmm mu ne wasaakum bihi moom la leen yàlla dénk de waa ndénkaane yàlla ku ko violé foo jëm laallakum ndax yéen tazakkaruna ngeen mën a fàttaliku mu ne maa ngi leen di yëgal ne wa anna hada lii ñu leen di wax lii ngeen tiim di sama téere wa anna hada lii siraati mooy sama yoon mustaqiman wu jub xocc wu ne coow mbokk yi aaya bi sax dañu war a dagg fii tey dars bi bii kese kese kese kese wa anna hada siraati mustaqiman ñu jël ko samedi bii di ñëw lu tax ma wax loolu mooy siraatal mustaqim def ñu amal importance ñaata yoon lañ koy ñaan par jour pour yàlla teg ñu ci ah bu dee julli suba ñaata yoon nga koy ñaan yàlla waxuma waxuma sunna yi farata yi rek kon bi nga yeewoo fajar li nga jëkk a def mooy ñaan yàlla mu teg la ci siraatal mustaqim tisbaar bi mu jotee ñeent takkusaan am nga ñaata am nga fukk gee nga am fukk ak ñett timis timis nga am fukk ak ñett gee boo ci boole naa fi lay nag chaque jour yaa ngi taxaw ci kanam yàlla naan ko ay dina siraatal mustaqim ay yàlla teg ma ci yoon bu jub bi te mënoo jub te yaa ngi koy ñaan te mënoo tegu ci yoon boobu te yàlla ne la wa anna hada siraati mustaqiman fattabiuhu lii mooy sama yoon bu jubbi topp leen ko ngay ñaan yàlla chaque jour mënoo cee tegu am na problème ah machine bi soo nee un plus un nga def égal ba pare deux ba ñu génn machine bi am na problème chaque jour yaa ngi taxaw ci kanam yàlla suba ngoon guddi ak bëccëg naan yàlla teg ma ci yoon bu jub bi te mënoo cee tegu mais problème am na fan la problème bi nekk nag léegi ndax ci ñaan bi la wala ci yow mi ñaan la wala ci ki ngay ñaan la fan la problème bi nekk ci ñun ñi ñaan wala ni ñuy ñaanee ci ñaan bi wala ci ki ñuy ñaan ah ah loolu mooy wax bi war nañu fexe ñu xam mbir mi fan la soo amee oto mu pan boo ko yóbbee ci mécanicien bi looy wax yow xam nga xamoo paan bi fan la mais da nga koy bàyyi moom mu xoolal la paan bi fan la ñun ñii nag dañoo paan ñun tamit dañoo paan Oustaz Alioune Sall yenn saa yi mu ne da ngay takk montre montre bi jékki-jékki taxaw nga koy dóor naan ko waaw mais tax doxoo mu ne yow mi doxoo doxoo ba pare nga bëgg montre bi dox voilà mu ngoog loolu mooy problème bi siraatal mustaqim la yàlla bëgg ñun ñëpp ñu jaar moo tax mu ne ñu wa anna haza siraati mustaqiman lii mooy sama yoon bu jub bi mu yonente bi da ko rëdd nee na yoon baa ngi nii de yoon bu jub baa ngi nii ñun nag tey ñu ñëw ut yeneen ñoon waaw ñu ne yoon yooyu ñoo gën a gaaw pour dugal nit àjjana yoonu sabar yoonu fecc yoonu tëgg yoonu yoonu yoonu ah ñu ne lii moo gën a gaaw dugal nit àjjana ku bëgg dugg àjjana fii la gaawee waaw barki dem ñu ne ma benn vidéo waa ji ne ñu ne ko looy liggéey mu ne toog muy dox toog rek muy dox gis ngeen vidéo bi xam ngeen ko ne ah envoyé nañ leen ko toog muy dox yonent bi daa toogoon muy dox allahu akbar toog muy dox ah loolu ban aaya la fa iza qudiyati salaa fantasiru fil ard fa iza faraxta fansab i'malu ala daawuda sukkur kullu imri'in bima kasabat rahina yàlla mun nañu dem leen ngeen yëngatu ji dem leen ngeen jaamu ji yàlla dem leen ngeen liggéey ñu ne waa ji looy liggéey mu ne toog muy dox borom bi nee na fattabi'u topp leen ko wala tattabi'u bu leen topp as subula yoon yi gis ngeen li tax ma ne la aaya bi fii la ñu waroon yem bu leen topp yoon yi yéen Sénégal lu ngeen am waaw da ngeen ko rus a wax gars yi de dañoo noppi lu ngeen yor yéen yoon la la tata bi suba la bu leen topp yoon yi waaw li koy ndigal la ci yàlla la bàyyee ko benn yoon lan toppaloo mooy siraatal mustaqim mu ngi nii mu ne wa anna haza siraati mustaqiman fattabiu mu ne wala tatabiu subula wala man li may wax ni nekku seen kaamil yi kon man damay wax rek fii ah man maa dem organiser alxuraan bi indi ko bi wala tata bi suba la nekkul seen yoon seen alkaamil yooyu ngeen yor yow lii la ñu ko en français ku yor français bi mu ngoog ngeen ko liiroon ngeen xam yàlla li mu wax wala tata bi subula bu leen topp ñal yi bu leen topp yoon yi te yoon yi moo ñu teree dem yoon yi jaar nii yii jaar nii yii jaar nii ku nekk di woote ñii dañuy gis yàlla ñii ñoom ay yàlla lañ ñii ñoom ñoog yàlla ñoo dëkk ñii ay rakku yàlla lañ ñii ay maamu yàlla lañ ñii ñoom raw nañ yonent bi ñii ñoom dañuy dóor ay malakul mawti kurpeñ ñii di poñe jibril ñii di toxal kaaba gi di ko indi ah ñii am ndoxum zam-zam bu aj bi ñëwee ñu ne ndox mi demal nga ñëwaat na nga ñëwaat de waaw loolu bu njëm wala tata bi suba la bu leen topp yoon yi ndigal la ci yàlla la bàyyeekoo mu ne su ngeen ko toppee lu leen di dal fatafarraqa bikum an sabilihi yoon yooyu ñoo leen di tàqale ba du ngeen topp ci yoonu yàlla bi allahu akbar ñi ñooy ay texte sans commentaire yoon yooyu bu ngeen ko toppee fatafarraq bikum da leen di taqale kii jaar nii kii jaar nii kii jaar nee kii jaar nee te benn yoon bi ngeen waroon jaar waaye mu taqale leen ndeysaan ku nekk nag naan ñun àjjana ñun ñoo fa nekk ñun ñoo fa dëkk déedéet yéen du ngeen dem àjjana de wóor na yàlla gis nga àjjana caabi ji ñun lañ ko jox kee naan moo ngeen xamu leen ñun appartement yi la ñeen naan déedéet déedéet li yahud yoon na sa laa tadxulul jannat ah ñee ji julli ñi duñ dugg àjjana ñi ne yahud duñ dugg àjjana ñi ne nasaraan yi duñ dugg àjjana wa qaalati nasara laysat al yahudu ala shay wa qaalati nasara laysat al yahudu ala shay ku nekk nag yoon yooyu ku nekk naan sa morom nekkuleen ci dara bu laa ne deere ngeen di sikkim démb am na benn mbokk moo woo téléphone démb mu ngi fi ci jàkka ji neen démb dafa julli gee ba pare seen imam woo ko ne ko diw kaay mu ñëw mu ne ko dafa am benn gént bu ma gént te gént boobu sax indil nañ ma ko ci sama portable mu ne ko ah mu ne waaw mu ne gént bi lan la mu ne ko dafa am ñoo xam ne yonent bi moo joxe ndigal dañ leen war a rey fu ñu leen gis waruñoo dund mu ne ko waa ji ne ko ah ñoo loolu ni ñooñu ñan la mu ne ko ñooñu dañoo am ay sikkim di gàttal seen tube yi ma ne ko yow mii la imaam di wax gis nga de ma ne ko yow mii la imaam di wax mu ne man kay xam naa man lay wax waaye gént boobu ban façon gént la ma ne ko géntul dara yow lay wax rek bu yeboo nga xam loolu mu ne nag léegi jàkka jooju war naa faa julli wala imaam bu la yéene ñu rey la ñi julli siwul waxul nañ leen rey yow mi muy gis fukki at ngay julli ndoog moom mu ne yow dañ laa war a rey waroo dund mu ne ndax imaam boobu war na maa jiite waaw gis ngeen loolu mooy mbir mi nga nekk ak sa mbokk jullit ci jàkk amoo loo ko yéene lu dul nañ ko rey li ma waxoon a ngi nii lu tax nga yéene ko ñu rey ko mooy yoon yi la fa tafarraqa bikum an sabili te Sénégal gi yëpp noonu lañ mel da nga fi gis ne bu lay jox ñaari loxo imaam ñi ñoo war a dee rek ñii fekk loolu la lay yàlla yàlla loolu la ñuy wax ci alxuraan suñ leen gisee ñu nuyu leen waaye ci biir ñu ngi màtt baaraam yauddu aleykum al anamil ñi ngi def waaw fekk ñu ngi am na lu ñu denc waaye buñ la gisee di jéem a di la nuyu nuyulu fekk liñ denc ci xol yi moo gën a garaaw téeméeri yoon ah daaw da mu ngoog yàlla mu ne zalikum lii wasaakum bihi la leen yàlla dénk laallakum tattaxuuna ndax ngeen mën koo ragal gis ngeen ragal yàlla bi du mun a nekk lu dul dañoo jëfe ndénkaane yi ndax ndénkaane yi mooy moo tax ñu am ragal bi ay fan la tàmbale woon qul taalaw atlu ma harrama rabbukum yàlla di dénkaane ba fii lan la ko tëjee zalikum wasaakum bihi laallakum tattaquun lii la leen yàlla dénk ndax ngeen mën koo ragal yàlla na yàlla may ñu ragal ko asalaamaaleykum wa rahmatullahi wa barakatu